wala wala boog les gars ça faisait un bail que gisoo leen ma donc dañ nekkoon ci ben congé bu ndaw xam nga on est de retour avec un nouvel invité Mr Vito from Buzz Lab ñu bàyyi la nga nuyoo internet yi eh gars gay ma ngi bëggee ñëpp donc di shout out ñëpp ñuy sétane émission bi man ma ngi lay bëggee bu baax ya ngi Vito from Buzz Lab from Mbour waaye man personnellement man ci sa mixtape bi la découvrir moy tasaare yes ok donc, est-ce que déjà, il y a une différence entre Vito et Abdou Diouf Yeah, il y a une grande différence. Wow. Je peux dire que la première différence, c'est que si tu as un son, Abdoulaye Diop investir Khalisam dans Vito. Vito hmm. doxal business business bi fessal compte Abdoulaye. donc peut dire que ñaari nit yu différent la quoi. Hmm. parce que Abdoulaye donc. Ben gaayen la bo xamante ni day xey galem xam nga mu job après ñeu gérer galem quoi. comprendre mais sénégalais lambda quoi sénégalais lambda effectivement. Mm-hmm. donc Vito c'est l'artiste quoi. le passionné tout ça mom ngay gis ci scène yi. tu mm-hmm. vois mom ngay gis nii instant yi nii mu tok di def interview bi ni affaire yu demee nonu quoi donc ñaari nit yu bokkul lo quoi. ok donc déjà entre rap gal c'est rap US ban mo la gëna inspirer inspiré quoi ban mo lay gëna influencer donc moi je peux dire que tey bu ma demee ba commencé di di di di rap. <coughs> rap US mon tax quoi. rap US moo le euh, inspiré ma inspiré ci ci ci rap bi parce au début comment rap Galsen bon comment naa ko mais daan ma ko woon déglu tu vois. ci samay début ay T.I là donc déglu surtout T.I quoi bon xoolee moo me gën influence influencé ci game bi quoi. donc après bon mooy loolu mais actuellement rap Galsen la ñuy def. donc ci ci la un acteur quoi maintenant ok donc man j'aimerais savoir ce rapport ak Canabasse. C'est quoi le rapport avec Canabasse <laughs> yeah, yeah. Abdou Sama Sama, je peux dire que Nekotul, euh, affaire de buzz la job, que c'est curb, curb quoi. Je peux dire que c'est un grand frère Timan, c'est un conseiller de moi. Euh, mm. aussi, daf may tek ci yoon quoi, ci yenn affaire yu bari quoi. Yeah. Tu vois, même budul ay, euh, même budul rabbi truc genre, jóge Dakar, dans otom ba déplacé uniquement pour maintenir un business quoi donc. je na dans cadre dépassé ngeen cadre rap plus vous êtes plus proche quoi. ok euh, donc euh, wa Akhlou Brick gis nañu ni wa Mbour est-ce que vous avez des rapports wala le ngeen c'est que darani? bien Akhlou Brick franchement c'est lu nous man ak ñoom. Mhm. vous êtes jamais rencontré. bon ci jamais jamono ci ginnaaw quoi mais depuis que voilà comme ni nga ko waxee sànq depuis que téb bi génn. ma xaw am benn code bi nii. Mhm. amaguñu benn benn rencontre quoi mais jotewuñu dara. il faut que mu leer quoi que gars yi xam ko quoi. amul biif man ak ñom amul dara man ak ñoom quoi mais seulement que mooy lolu quoi ku mhm. nekk dafa ceene sa qui gère gérer sa life quoi. ok donc j'aimerais revenir ci sa thème bi clip bi gis nañ ni genre mooy sa empreinte gis nañ sa intro wax nga ni bii mooy sa carte xam nga d'identité ñëw ni nga ci game bi donc déjà projet bi Tassare ça t'a pris combien de temps pour construire projet bi et aussi pourquoi le choix de Omzo Beat ci produit gis nañu quasiment moom produire lépp. yeah hmm. bon en fait euh, first mooy que projet bi euh, bi ma koy job war na ma jëlal un an et quelque voire deux ans quoi. Hmm. parce début bi dama demoon di insérer ben son par ben son. di programmer quoi parce que Omzo non lañ done joobee dama koy damay dugal ben son le temps muy job boobu ma récupérer beneen inséré boobu noonu quoi. Mm. donc non la fa ne parce que jëlal na ma ay un an et quelques voire deux ans affaire yu demee noonu quoi. Mm-hmm. Omzo aussi. <clears throat> Euh, li tax ma choisir quoi avant ma ma contacter Omzo j'avais contacté d'autres beatmakers. Mm-hmm. donc newul mom rek la ñu contacter dama njëkk contacter ben gars à mu ma waaw ok ñu waxtaan ci prix bit bi nice mu jox ma numéro ma ne ko légui proposer ma Proposer wu ma dara. ma baye mu sédd, ma contacter kenen, kokku ñu jëgg ñaar yoon rendez-vous. mu mhm. faussé rendez-vous bi quoi parce que ñu si nañ ko tëgg ak nit RV. Mhm. jour rendez-vous ma koy kóol jëlu. ok seulement que bon je pense qu'il se disait que gain bi xamuñu ko donc duñ ko joobal ay prod. Mhm. donc peut-être que suñu prod du dem mënuñu apporter dara mais Omzo fi ma tok sur Facebook. laa ko ne salut mu ne ma salut ñu waxtaan mu jox ma numéro ma ne ko proposé may biit fi ma toog ci sama machine mu proposé ma kat bi. ma ne kii mooy waa ji quoi. Mm-hmm. te depuis loolu aussi job bi noonu la continuer su ma ko joxee rendez-vous. Omzo mooy koo xamante ne boo joxee rendez-vous 15 heures. 14 mm-hmm. heures 30 da lay woon ne la booy maa ngi sur place quoi. ok donc mais période boobu signé gu woon Buzz Lab. tu étais indépendant laa doon def. Euh, ba jusqu'à présent affaire demna aussi momit ba dépassé affaire de beatmaker ñeu job affaire yu demee nonu quoi. donc demna ba donc là la suite de Tassare c'est quoi qu'est-ce qu'on peut attendre après Tassare. <laughs> yeah yeah là amna ay parce que amna calendrier bu ñu suivre depuis lors. Mm-hmm. peut-être que euh, c'est vrai que depuis mars. Euh, génne wuñu son defu ñu concert ben ben show lañ def à Mbour mm-hmm. mais quand même que amna ay affaire yu ñeu quoi. Mm-hmm. donc ñu ngi koy pare y a des dates yoo xamante ne nii jàpp nañ ko si bien ficelé teg nañ programme bi. gis nañ dernièrement sa clip bi nga génne. ak clip bi affaire yu demee non. Mhm. donc am na ay conseils yu war a ñëw am na yeneen son yu bees yu war a ñëw des feats et autres quoi. ok donc on passe à la deuxième partie de l'émission donc euh, c'est un quiz hein. déjà dañu xool sa culture si wàllum rap garçon? <laughs> tu vas répondre les soit pertes si tu as ces cinq questions. Mhm. Se trouver la moitié, bon, se trouver deux ou le trois, se trouver trois, tu as gagné. ok Soit perdre n'a pas nga un gage bu ma ça <laughs> voilà donc euh, bon groupe de rap moi dont donte bonne bés. voilà classique. quel est le titre du son entre la collaboration avec Gaston ak Café? titre son euh... classique tamit calcul mental. voilà deux sur deux <laughs> question daa amal yomb na la léegi ma dugg ci sa terrain ci sa label son bi amul ci ban for de buzz la nekkoon un wala deux wala trois. for son bi amul xam nga ñëpp dóor nañ ci ay lox like autant quoi gars yi ay picc. sukaana for de buzz trois la. amul for de buzz Euh, les membres de, de Dakar All Star yaa ngi fàttaliku groupe boobu. waaw wax ma membre yi ils sont nombre de quatre ma jàppale la ci. donc di nga am Nix. Nix waaw. Asma Lik. waaw. Gaston. waaw katie ok bingo am nga trois sur euh, <laughs> trois sur quatre. dernière question dernier album de Malal Fou Malade ak Niagas euh, nu mu tudd. ah Ousseynou Gassa.

merci donc euh, ci accessibilité vie, <laughs> c'était pas facile nga jógee Mbour ba fii <laughs> nañ et bon courage pour la suite jaajëf voilà pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si la la nek à ci chaîne YouTube bu Vibe Radio peace